ca bët sàllumu réew mi ñaari samba boy nag kenn ki nekk doomu Sénégal keneen ki benn Bissau Guinée ñoom ñee nag gendarmerie bu Bunkiling daf leen teg loxo lu ko waral ñaari samba yooyu dañoo yoroon uh, yamba di ko jaay lu toll ci juróom fukki kilogramme la ñu yoroon gendarmerie nag kon dafa am benn opération bu ñu def démb rek looloo waral ñu teg loxo trafiquant bo yooyu noone ñuy xamle rek ne ñaari samba yooyu seen benn réseau la ñu yoroon di ko jaarale nag si diggante Ziguinchor Kolda ak Sédhiou wante fi mu toll ni defeere nañ leen ca parquet bu Kolda Bakary ak Thierno Laurent Mendy brigade mixte bu gendarmerie bu Bounkiling mu nag jàpp na ñett saaku yi fees dell ak yamba mu mat ci cinquante kilogramme ci dëkk bu ñuy woowee Kanjaalon Adama ci ak Mamadou Aliou Diallo nekkoon ci benn moto Yamaha ñu ngi leen jàpp ci dëkk boobu ci ay deux heures du matin élément commandant Tamsir Sané moo leen jàpp. ci booru deux heures du matin dañ jotoon information. ci ca information bi ñu ne ñu daal am na ñaar nit ñu nekk ci benn moto ñu nga yor ay saako yamba di jëm côté Kolda bi ci kaw loolu ñun ay booru deux heures si lañ dem maag samay élément ak renfort gendarme auxiliaire yi dem toog si côté village Kandialu ñu fa toogee ba ay deux cinq si lañ seen moto bi di ñëw mais bu ñu egsee am ko ci fay lamp yi bu ñu fay lamp kenn ki ñëw di xool yoon bi ndax amul ab gendarme ab douanier ba fa nekk ci kaw loolu si lañ ko jàpp dañ ko jàppee génnee ko foofu ñu ñu wax xale yi ñu laal benn dispositif wax leen pour ñu wéri ñu wiiri bi ñu wiiree seen njam fekk kenn ki nga xam ne moo yoroon moto bi ak saako yi tëdd bu ñu gisee muy jéem a daw si la ko xale yi dàqee jàpp ko ci kaw loolu si lañ jàppee moto bi yamba bi ak ñoom ñaar bu ñu ko pesé ñoo xam ne affaire bi def na cinquante kilos. brigade gendarmerie bu Bounkiling bi moo nekk ñetteel yoon depuis at bi door ba léegi di jàpp ay yamba ñoom nag ñeneen ci diwaan bi am na réseau bu mag bu trafiquant boo xamante ne jóge na ci Sindian foofu ci Ziguinchor jaarale ko ci région bu Sédhiou dem ba ci Kolda ñaar ñi nag ñoo xamante jàpp nañ leen ñoom defeere lañ ne ci parke bu Kolda. jërëjëf Bakary konte Ndak